ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله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 ci weeru koor di suñu ñaar fukkeelu dars ak benn yàlla nañ ko yeggaleeg jàmm kom niñ ko commencé tey nag ki ma may sama tafsir wala ñi ma may sama tafsir mooy waa xusariyaat ñooñu nga xam ne ay soxna lañ te dara ñoru leen dul alquranul karim ci jiital Sumayya Dégéen macha allah di ko may sama xarit Faat Jaxate sama doomu ndey di ko may sama turandoo ndey Fatou Cissé ak waa Touba yëpp nag képp kuy yeewoo Touba rek xamal ne tey moom yow la may dars bi sama xarit ndey Assa Seck ñaareel xaritu ma sha allah bu ndaw lay wax nak bu mag ba mom mi ngi Amérique sama xarit Amina sek madame Diop sha allah ah, sama mbokk yëpp Fatima ah, Amérique sha allah kooku sama dom la sama xarit sama mbokk yëpp rek sama xarit yëpp sama soppé yëpp ñu ngi leen koy may. xam nga ni ñu ngi ci sootul mujadila tay moy dernier tafsir ci sootul mujadila tay lañu jégg égal sar bi. incha allahu rabbi ñi nga yemoon ci naafeq yi yàlla li mu waxoon ci ñoom ne bis ba bis dina ñëw yàlla dajale leen ñoom ñëpp ñuy giñ nag ca yàlla comme niñ doon giñee fii ci àdduna yàlla xam na ne ñooñu ay narkat lañ ay kàcckat lañ yàlla mu ne istahwada daa istahwada alayhim cheytaan cheytaane ànd naa ak ñoom daal di leen di dugg ci seen biir xol yi fa ansaahum mu fàtte leen zikrallahi turu yàlla ñoom naa fekk yi dañoo dem ànd ak seytaane ba seytaane fàttaloo leen tudd yàlla <clears throat> ulaayika ñooñu naa fekk yooyu xisbu seytaani ñoom ñooy waa kuréelu seytaane ñoom ñooy waa euh, famille seytaane ñoom ñoo bokk ak seytaane xam nga ñaari xisbu moom am yàlla bu waxee xisbu rek ci alquran ñaar la xisbullah ak xisbu seytaane ñi ànd ak yàlla ak ñi ànd ak seytaane mu ne ñii nag mooy ñi ànd ak Ala wawe yalla mune inna hizba shaytani naka wa shaytani day kurelu shaytani humul khasirun ñom ñoy ñi perte ñom ñoy ñi am ñi dajeeg mbugalum borom bi ñooñu yàlla yalla limi bëri bëri yermane duñu bok ci yermane yalla ndax dañu baye top rahman top jam yalla top eh, baye lepp dal di koy dëddu dëddu ngam yalla dëddu alquran top ki nga xamanteni moy iblis te iblis xam ngeen ni ku top da ngay perte ku top da ngay soy ku ko perte dangay am euh, mbëggalum yàlla ak merum yàlla léegi nag yàlla ñëw si ñi nga xamante ni ñëw si ñoom ba léegi fii ay ñaar ay mujj yi yàlla def ciy wax ni ñi nga xamante ni nit daal euh, du bëgg koo xam ne dafa bañ yàlla koo xamante ni bëggul yàlla du topp yàlla kooku jullit du ko bëgg du ko topp yàlla mu ne inna la diina ñi nga xam ni gaa ñi nga xam ni yu xaaduuna allaha dañuy mooy yàlla ورسوله اك بيرنتام دي خيخ يالله دي خيخ دينه جي اندك نيغا خامن نيو ييفري اندك نيو بون ني اندك نيو تروخ ني يالله نينا اولائك ньоญو في الازلين نيغي نيك سي كيرغو تروخ غام كيرغيغا خامتاني موي كير يوم غي سفر يوم القيامه كير يو تروخ يي غنا سوفي يوم القيامه ньоญو كير يوي لاني نيك يالله مون كتب الله بيننا يالله سما بروم ني لا اغلبن دينا نوت ana man wa rusuli ak sama yenent man yàlla dogal naa ni dinaa gañe ma sama yenent li ñuy fexeel fexeel yenent bi li ñu koy xeex xeex li ñu koy jëw jëw li ñuy wax ci moom lépp yàlla mu ne man dogal naa ni dinaa leen gañe ñom yéefar yi dinaa leen gañe ñoom yenent bi ñoom ñoom yéefar yi dinaa leen gañe man ak sama yenent inna allaha wóor na ne yàlla xawiyun ku am kattan la azizun ku tedd la yàlla mu ne li ñuy def lépp teewul man dinaa leen gañe yàlla nag daal di wax ci fin aaya bi nag mu ne doo fekk mukk koo xam ne dafa gëm yàlla di ko jaamu dëgg-dëgg jaamu gëm yowmal xiyaam di màggal yàlla di ko wéetal di sellal ci jaamu ga muy jaamu yàlla di bëgg koo xam ne gëmul yàlla di bëgg koo xam ne day xeex yàlla di bëgg koo xamante ne nii day xeex yonent bi sallallahu bi wa sallam yàlla mu ne ñooñu mu ne doo leen fekk mukk mukk mukk ñuy gëm yàlla donte kon nag ki bañ yàlla sa mbokk la donte kon sa yaay la wala sa papa la ndax euh, li nga xam ne moom mooy mbëggeel ci diine moo gën a foor mbëggeel ci deret cofeel diine ki nga am nit ki nga xam ne yéen a bokk pas-pas seen cofeel moo gën a foor li nga xamante ne mooy cofeelu deret ndax léeg-léeg nit ki ngeen bokk benn deret waaye bokku leen fa ngeen jëm ki day aw saw saw kii aw penku Ya tax yalla mu ne ki gem yalla dal gem yowmal qiyam doo ko fekk mukk muy mengo wala muy xarito wala muy and ak ci bañ yalla léeg-léeg nga gis ko xam da nga nan julit nga nga gis fa ñuy waxe yalla lu bon ba pare teewul nga bëgg ñooñu nga gis ño xamanteni ni jaamu wuñu yalla nga jël ñooñu gën leena bëgg sax ci julit ñi lool mo moom ta nek yalla mu ne do fek xaw man aw nit yo xamni Yuminu dañuy gëm billahi ci yalla wal yawmil akhir ak bis penc yu wa du nañuy bëgg man xaadallaha ki wedd yalla di di jéggi frontière yàlla yow rasulahu jullit dëgg-dëgg munta bëgg koo xam ne gëmul yàlla walaw kaanu donte kon nekk nañ aaba ahum seeni i baay donte kon ki gëm yàlla sa baay la sax yow ki gëmul ki gëm yàlla te nekkul sa sa baay moom ngay gën a bëgg moom ngay gën a fonk aw abana ahum wala seeni doom sa doom loo ko bëgg-bëgg te gëmul yàlla nga gis doom ju bëgg gëm yàlla moom ngay gën a bëgg ci doom jooju bu fekkee jullit dëgg nga moo tax nga gis ni xaswatu badr gis nga doom ju rey baayam gis nga baay ju rey doomam ndax lan ñee ay yéefar lañ ñii ay jullit lañ jullit ñi ñoy bëggante dëgg dëgg bëggante te jullit bu gisee ko bëgg yàlla da lay bëgg ku bëggul yàlla nag wala nga weddi ko wala ngay wax yàlla lu bon jullit bi ak bu neen doonte kon sa papa la wala sa doom doo ko bëgg aw ashiratahum aw ixwaanahum wala ñuy seeni mbokk même bu dee sa mbokk la sax ka nga bokkalul te muy jullit ngeen bokk pas-pas ba gëm-gëm mooy gën a bëgg aw ashiratahum wala seen famille morra ka família te bokk leen pas-pas ña nga bokkal pas-pas ngay gën a mën a defal ulaayika ndax ñooñu day jullit ñi kataballaahu yàlla bind na fi qulubihim ci seen xol ya al iman ngëm yàlla ñooñu ay jullit dëgg lañ te yàlla bind na ñi ay jullit lañ bind na ngëm yàlla ci seen xol ya wa ayyadahum mu daal di leen di dëgëral bi ruuxin minhu ci ruux gu bàyyikoo ci moom yàlla wa yudxiluhum mu dugal leen jannaatin ay àjjana yoo xam ne tajri dina daw taxt min min taxtihaa ci suuf àjjana yooyu al anhaaru dex yi ñeent xaalidiina fiihaa ñu sax fa ba faaw yalla mune ñi gëm yalla yalla man man yalla bind naa ni ñi ay julit lañ def naa ko ci seen xol ya ak seen ruh ya te dama leen di deugalal ci sama ngañaay man yalla dama leen di ar dama leen di jàppale ba pare dama leen di dugal aljana yo xamni aljana yu neex la aljana yo xamni ay garab yu rafet fa nek aljana yo xamni ne ma day ñor aljana yo xamni dañ fay sax ba faaw loolu ndax lan dama leen a dama leen dama bëgg liñ doon def loolu la leen fayé te dootuma leen mere mukk fa la ñuy sax beelu fa ak yërmande ngërëm maane goo xam ne ci borom bi la bàyyi ko ndax fay gim leen di fay ñooñu mënuñoo yem ak ñeneen ñi de waaw yàlla mu ne radiallahu gërëm na leen yàlla gërëm na leen ñooñu anhum wa radu anhu mu sàkku tamit ñu gërëm leen ñooñu day ulaika xizbullahi ñoom ñooy waa kuréelu yàlla xam nga sànq jàngoon nañ xizbu sheytaan mooy ñi ga xam ne naa feq yi lañ ak ñi weddi yàlla waaye ñi nga xam ne nag dañoo baax bëgg yàlla di ko jàppale di méngoog ñi nga xam ne ñoo bëgg yàlla képp ku bëggul yàlla bëgguñu la képp kuy eh, xas yàlla dootoo nekk seen waay ñooñu yàlla mu ne man maa leen bëggal sama bopp man maa leen di wax tamit nit ñi bëgg leen te ñooñu ñooy waa kuréelu eh, yàlla ala waawee dëgg-dëgg inna xizballahi naka kuréelu yàlla humul muflihun ñoom ñooy way texe ñi yàlla ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm di ko jaamu bëggante ci seen biir jàppoo sellal ñooñu yàlla ne dinaa leen fayee àjjana yoo xamante ni dina am ay dex ñeenti dex dex àjj dexu sàngara dexu soow doxu ndox dex dexu lem ba pare nag ma daal leen di gërëm nag ba pare wax sama jaam ñi ñu gërëm leen ñooñu nag ñooy ñooy ñi nga xamante ni ñooy kuréelu yàlla yàlla nañ ci yàlla boole ñooñu ñooy nekk ci àjjana yoo xamante ne ni yu neex lay doon fii maqaadi sidqin inda malikin muqtadir fofu lañuy nek yowmal qiyam yàlla nañ ci yàlla boole ñu bokk ci hizbullah yàlla ñu yàlla musal ñu bokk ci xizbu shaytan ndax xizbu shaytan humul khasirun yàlla ne ñoo ñu moy ñu way perte ñi kon mbokk yi li moy suratul mujadila euh yàlla ñu yàlla may dégg ak top ñu leen di fatali ni sar bi mi ngi commencement bi mi ngi wàcc ci ci jigen motax ben bis umar ibn Khattab radiyallahu anhu romb na xawla bobu màgget na xawla taxawal ko diko war diko fatali naan ko Omar démb ab ab Omar nga woon as Omar nga woon léegi nga nekk mbaxa ba mu yàgg nga nekk waxambaane léegi nga nekk amirul muminin di ko waar naan ko ragalal yàlla am ku taxawoon ak moom ne ko waaye Omar ndax màgget sii rek moo tax nga taxaw Omar na ko kii de su waxee damay taxaw ndax yàlla dafa dégg ay waxam si asamaane juróom-ñaar xat sami allahu qawla lati da doon wax ak yonent bi yàlla dégg ay waxam tontul ko indi si ay atte yoo xam ne yu rëy la kon li ma waxoon ci commencement bi rek yii daf ñuy assuré ñun jigéen ne dafa am fi ñu islam teg dafa am foo xam ne fa la ñu islam fekk jële ñu fa indi ñu nag fi nga xamante ne nii mooy fu kawee kawee kawe ba saar di wàcc si ñun kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax delloo yàlla njukkal kon saaru mujaadala mi ngi noonu yàlla na yàlla defal ñu dégg topp ñu leen di jox dig daje ba suba ak jàmm incha allahu ci suratul xashri wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.